nekkee ci loolu tamit. ku def lu léegi comme daf bu mu paree ba léegi dégg nga dégg ah, de. lu tax ma la koy wax. <laughs> ma ñu tuddee tuuti rek. déedéet. la ko tuddee te macha allah kontaan naa ci bu baax waaw jaajëf. ok dèjà di kontaan bu baax a baax kontaan ci bokk si invité yi kontaan ci ñi nga xamante fekk nañ lii parce que stade bi yàggoon nañ ko bëgg yàggoon nañ bëgg bijou bu mel ni ñu am ko tey bokk ci ñi nga xamante dañ koy inauguré donc mënuñu def lu dul kontaan mm-hmm. euh, tey mu delloo ki nga xamante ni moo son excellence ancien président de la république du Sénégal euh, Fara Wade Ndiack euh, tey xel ci lan la dem waaw fierté la déjà c'est une grande fierté qu'on Ablaye Wade lu war la parce que Ablaye Wade def na lu bari ci dëkk bi donc la tey ñu delloo ko njukkal. Euh, tey ñu gis la musique sénégalaise ñëpp daal di booloo doon benn euh, loolu mu doon loo xamante ni ñun ñi sax ñu toog ci kaw tribune bi dañu kontaan. waaw dëgg la comme li ma wax rek mbooloo mooy doole te Sénégal ku ko xam xam ko ci valeur yi nga xamante ne mooy partage mooy booloo mooy bokk mooy loo xam wax keneen ki donc tey jii boo ko gisee artistes yi bokk lem pour mën stade bi dalay won rek ne sa c' est des valeurs sénégalaises et c' est yoo xamante dañ koy wan ñëpp wan ko monde bi pour ñu xam ne Sénégal lii lañ xam te ci loolu la ñuy sax. waaw en nañ ñaan yàlla ndam yi di gën a bari parce que euh, coupe bi nekkoon na loo xamante ne nañ ko bëgg ñu am ko ren mu tombé tamit ñu inauguré stade bi. na ñëw Sénégal ak jàmm ndax sénégalais yi mérité nañ lu raw donc tey jii recommencement euh, la rek donc li di ñëw j'espère que mooy daal merci